ñep ñep ngi may dégg jarul may may yuuxu euh, jërë ngeen jëf d'abord ma ngi nuyu jeunesse bi fi tew di leen euh, féliciter ci tank yi ngeen dox pour ñëw def ci formation way bala may sore damay d'abord euh, féliciter bu baaxa baax ngaari mook ñom bay seen jël initiative bi pour mobiliser leen fi tay sentir sur nos partenaires monsieur Diouf nous fi ñëw ci le PSE euh, mobile avec notre frère Goudjabi, du domaine agricole communautaire de notre Djabas, mais sentons aussi euh, taskatu Kibari. Ce li ma wax sànq c'est xam-xam suis un jeune ce qui différencier avec un animal c'est la connaissance et la compétence ndax xalé dafa am énergie énergie nak bu wérul ci xam-xam rek day danger donc la jeunesse est un capital humain lorsqu'elle est formée lorsqu'elle est éduquée mais elle devient une bombe sociale quand elle n'a pas de connaissances kon li ngeen def xam leen lu am importance la té da ngeen xamné également jamono yiñ ñu toute la vie da ngeen di jang jang mo amul app Jang amul app kon li ngeen tambale ko waye bu len ko bay. Nenalen len leen entrepreneuriat ndax moy sen thématique formation moy ku am xalat jëfe ko ba mu nek entreprise bu am njariñ ci goxam loolu moy entreprise entreprise nak ñetti point ñetti tank ñokoy koy ku nek ci yeen bëgg nek ëlëk entrepreneur soit nga am salon de coiffure boo nekkee jigéen soit nga am tool boo nekkee xale soit nga am entreprise buy def informatique bu fekkee loolu la intéressé soit booy def transport soit booy jaay bitik ñetti moom ngay gànnaayoo saay su ne bi ci njëkk mooy talent bi nga am ndax loolu yëpp talent la xam-xam la nee na leen ñaareel bi mooy la technologie fexeel ba looy def da nga koy yeesal mu nekk lu moderne boo amee salon de coiffure nekk salon de coiffure mucc ayib booy jaay boutique na nekk jaay boutique bu mucc ayib ñetteel bi nag mooy capital maanaam xaalis bi lay permettre nga réaliser ñu bëri nag dañu jàpp ne entreprise su ma amee xaalis rek am na entreprise déedéet kon ñett yi dee leen koy bàyyi xel saay su ne li may daane le ma ne leen bu ngeen jógee fii balaa ngeen ñibbi seen kër war ngeen mën a tënk ay projet Vous devez avoir déjà des études de projet dans vos, dans vos têtes. Parce que l'entrepreneuriat, moi, avoir une idée et la transformer en projet. Si vous avez un projet nee naa sànq fii ak ñetti weer nañ toogaat ak yéen projet def business plan su business plan yu pare ñu ànd ak seen jeunesse la ñoom ngaari ñoom gujaa bi ak sous préfecture instrument yi nga xamné gouvernement du Sénégal mu ngi ko jox doomu Sénégal ngeen jël sen wal comme la délégation à l'entreprenariat rapide parce que ci ngeen bok ngeen nag wolu sen bop gëm sen bop ndax ko xamné wolu bopam boppam gëmul boppam moom kooku moom mënu ko jappalé donc cet engagement là mom la leen denk pour que au sortir de cette formation Ngari que dans les trois prochains mois trois prochains mois pardon que nous puissions disposer des business plans structurés que vous puissiez identifier des leaders. Parce que entrepreneuriat, ça veut dire également construire un leadership. Le soin qu'on fait, avec l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui, nous pourrons les accompagner justement qu'ils soient demain de futurs très bons entrepreneurs. Nous pas chef d'entreprise Mais, mais nous ngeen grouper par groupe de 10 nous que les commerciaux nous que les producteurs nous que les managers en gros sont les trois grands ensembles d'une entreprise Si vous fait 10 jeunes avez une micro boulangerie C'est un projet C'est un financement de 7 millions Vous dem Ngolaar defe une micro boulangerie Ni de produire ni de gérer. ni de gérer su ëllëgee ngeen am ñetti boulangerie petite boulangerie à l'échelle nationale C'est ça l'ambition de développement donc Gary, moi je ne suis pas encore très satisfait. Je serai satisfait quand des projets qui sont nés de cette formation vont constituer des entreprises que nous allons visiter. Quand nous allons visiter la première entreprise créée par ces jeunes que vous avez formés, en ce moment-là, je commencerai par des satisfactions et félicitations. Mais pour le moment, je vais vous des conseils. C'est de Khalat, en tant que papa pour Ni, grand frère pour nous, oncle pour certains. Donc, croyez en vous, chers jeunes. Croyez en vous. Ne désespérez jamais. Jamais ne désespérez. Vous avez du talent. La technologie, elle est disponible. Et le capital, il est là.